الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الفاتح الخاتم سيدنا محمد الناصر الهادي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 di fas yéene delluwaat di sof li sosoon ak yow tabaarakallaahu ci mawaqiful diin waxoon la ca al islaam tabaarakallaahu ak ñetti maratib yim am muy at tawbatu al istiqamatu at taqwa waxoon la al imaanu ak mawaqif yim am muy as sidduq ak ixlaasu tabaarakallaahu ak at tumaninatu waxoon la al ixsaanu ak mawaqif yim am muy almuraqabatu ak almushahadatu ak almarifa yooya nag di juróom ñeenti maratib ñett ya lislaam moom ko yeneen ñett ya al moom ko yeneen ñett ya al ihsaanu moom ko maratib yooya nag laa bëgg a ñëw di la ko farañ fànceel te mu gën a leer ci sa bopp bi waxoon naa la tabaarakallaahu at tawbatu mi nga xam ne moo jiitu ci mbooleem maqaamaat yi nga xam ne képp ku ko melowoo yow daal xeyoo nga yërmande yàlla jile sotteeku ci sa kaw ko defee kon taw ba am na solo moom la yonent bi doon wax ne atta ibu min azanbi kaman la zanba la ngir doole juré ji nga xam ne am na ko mu ne képp koo xam ne yaa ngi tuub tabaarakallaahu yaa ki amul bakkaar yéen a yem ndax koo xam ne saa yoo tilimee sangu a lu ñuy tuddee tilim da nga cee mujj mucc nga mujj nekk koo xam ne ku set set ngay doon waaye nga nekk koo xam ne tamit ku laaba laab ngay doon ña koy def di tuub tamit yàlla bëgg na leen ba alquran a ngi wax ne inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin yàlla bëgg na lool ñi nga xam ne saa yuñ ko tooñee rek dellu jëm ci moom tuub waaye yàlla bëgg na lool ñi nga xam ne tamit fuñ mun di nekk tabaarakallaahu dañuy laab dañuy taqoo laab moo xam laab ak biir la tabaarakallaahu moo xam laab ak biti la ñaari laab yépp yàlla bëgg na ab jaam bu cay nekk kon kon laab lu ama am solo la waaye li ñuy tuddee ak tuub di dellu ci yàlla timit lu ama am solo la ci mbooleem waxtu yi ak ci mboolem jamono yi tuub am na solo yàlla ñu koy sant ne na ngeen tuub dellu ci yàlla wa tuubu ilallahi jamian ayyuhal mu'minuun la'allakum tuflihun yéen ñëpp na ngeen tuub dellu ci yàlla kon de sikk amul ci ne su ngeen tuubee dellu ci yàlla rek dangeen ngeen texe te nag texe rek la wut kon képp ku bëgg a texe nekkal kuy tuub di dellu ci yàlla buntab yàlla bi ci tuub du tëju feek jàmm bi nekkul ci xar-xar lay su ko defee kon foofu feek xëggagoo ca rek maanaam ala xaal boo ko maanaam boo ko tàllalee loxo lu mu taq-taq lu mu tilim tilim moom yàlla mu jël ko ngir mbaaxam tabaarakallaahu tamit ak ngir ak yërmandeem ak ñëwante gi mu bëgg xeetu sayidina muhammad kon nag tuub waxoon la suruutam ya waaye tuub tamit waxoon la teggiinam ya muy ay teggiin yoo xam ne moo koy rafetal waaye waxoon naa la ay surutam yoo xam ne tamit ci lay tuub di door di mën a matee te bàkkaar kenn mënu ci mucc rawatina suñ jamono jile nga xam ne Cheikh na Ahmed Tidiane dafa ko doon misaale taw bu fekk nit ci àll amul fu mu seelu fu mu jaar tooy moo tax jamono la joo xam ne ñëpp a tooy waaye gën a tooy rekk moo fi ne taw bu la fekkee ci àll amoo foo seetloo foo jaar tooy waaye nag nit ñi gën nañoo tooyante am na ñoo xam ne dañoo tooye tooye tooy ba ci wóom ñii tooy ba ci ndigg ñi tooy ba ci seen baat yi ñenn ñi géej ak bàkkaar tabaarakallaahu mu nañ nuur ci amatuñ benn fenêtre bu ñu mën a jaar ba mën a génnati loola nag yàlla nañu ci yàlla musal te mu nekk tamit tabaarakallaahu lu bëree bëree bari rawatina ci suñu jamono ji bàkkaar ak la ca aju ni mu mel kon nag yàlla ubbi na buntab tuub nañu tuub rek di dellu ci moom te moom wax nañu ko tuub leen ngeen dellu gi ci man yàlla da ngeen seen loxo yi lu mu tilim tilim ak lu mu takk taq bu teree man yàlla danaa ko jël ngir mbaaxam waaye moom yàlla tamit dana ko jël ngir ak yërmandeem kon nag mu ngi tuub kat moom la fi yàlla njëkk a andi waaye ba mu tarxiisee tarxiis goo xam ne tarxiisu zahir la waaye nekk ñàkk tarxiis ci baatin ni ko imaamu xasaali yu waxe terewut yàlla da ko sa ay baat mu jël ko di ca tuub te yàlla ne fatalaqa aadamu min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim kon tuub mooy première maqaama ci maqaamaatu diini ah, ab jullit bu nekk fa la njëkk war a tànkam su boobaa am na teguwaay boo xam ne nii bu dëgër dëgër la boo xam ne dana ko dimbale ba nga xam ne du mën a du mana a timit tabaarakallaahu yàqule ci lu bëree bëree bëree bëree bëri su ko defee kon nag nañ ciy bàyyi xel topp ko lool tabaarakallaahu timit te di ko toppatoo bañ a jàpp na ñun euh, kenn ku ne jàpp boppam ne ku sell la ku set la ku baax le la loolu boo ko defee rek da ngay mujj yàqule dangay ngay mujj tamit di dund dundab maanaam xayawaan yi Euh, waaye nag boo bëggee dund dundab malaaka foo tollu del tuumaal sa bopp jàpp ne yow daal yaay ki gën a yées yaay ki gën a bon loola boo ko reconnaître rek nangu ko def ko itiraaf su boobaa baax tabaarakallaahu ak baaxle dana la yomb waaye bu loolu amul rek musiba moo fay mujj nekk ci ak yàqule goo xam ne borom du xam fa mu jëm ak moom te loolu lu jara muslu la loolu tamit tabaarakallaahu lu jara daw la loolu tamit tabaarakallaahu lu jara sori la kon nag tuuba ngoog ak maratib yu mag yi nga xam ne am na ko tuuba ngoog ak darajaat yu kawe yi nga xam ne am na ko tuuba ngoog ak fadail yu yi nga xam ne ràngoo na ko su njëkk nag boo koy def da ngaa war a fexe ba buddeeku ca bàkkaar bi ngay tuub ñaareel bi nga réccu lu taxoon ngay def bàkkaar bi ñetteel bi nga dogu ci sa dund ne dootoo ko defati mu des ki sa dund bi lépp dootoo dootoo dootoo yàlla ci bàkkaar bi ngay tuub waaye tamit nag lépp lu la rëccoon nga sàgganee ko nga taxaw ci loola ci wàllu dabaatal ko nga tollu ci dabaatal ga nag mooy tax ci dabaatal ga fa nga jëm nga man faa egg xaq yi nga xam ne yaa ngi ko doon sànq ci wàllu nit ñi sa digganteeg alal ya nga fexe ba delloo ko waaye tamit sa diggante tabaarakallaahu ak julli ya la faatoon woor ya joxe asaka ya aj màkka ya yooyu yëpp nga góorgóorlu ba dabaatal ko jàllar bi ko tamit jéggalu yàlla ci li tax nga yéex koo def loolu mooy tax nga mën a am bu loola paasee nag nga door a def nag istixfaar istixfaar nag ñëw ci nag diggante li la faat nag nga door koo nag dabaatal boo ko doon misaal daal da wax ne dafa mel ni ku yàlla yàlla lim tere yëpp tere ñu ko ne buñ ko def dafa mel ni frontière la ci frontière yi nag yow boo sobee ba jéggi frontière te amuloo ay dossier la la war a njëkk mooy nga del si waat ci frontière ba fa nga moom itlaaxoo ngoog nga réy ci lu taxoon nga jéggi frontière bi nga dogg ci sa dund dootuma jéggeeti frontière te fekk amuma dossier yu légal dossier yu légal bu paree nag nga door a commencé nag di jéggalu taxoon ngay jéggi frontière lii jéggalu googa nag istixfaar door a ñëw kon tuub am na solo moom la alquran ne wa tuubu ilallahi jamian ayyuhal muminuun laallakum tuflihun waaye waaye yéen nit ñëpp tuub leen yéen ñi gëm yàlla ndax ngeen texe yonent bi ne attaibu min azanbi kaman la zanba lah waxaat ne wa ida ahaba allahu abdan lam yadurruhu zanbun yàlla bu bëggee jaam bi rek bàkkaar du ko lor ndax bàkkaar bu mu def dafay gaaw tuub ko te yàlla ko baax la boo defee bàkkaar bi dana wax malaaka yi ñu muñal la ñetti waxtu soo ko tuubee kenn du ko bind boo toogee ñetti waxtu tuuboo na ngi door koo bind ñu am na sax riwaayu def juróom-ñaari waxtu su ko defee nag boo tuubee nag yàlla ci mbaaxam mu effacé lañ bindoon kooku mooy indi almaxfiratu ak ak afu su ko defee nag mandargaay tuub lii waral ne sa tuub gi yàlla nangu na ko faw nga réccu ko te yàlla ku bëgg ku tuub la moo gën a bëgg ci ku tuub rawatina waxambaane wu nekkoon ci caaxaan ba ci kanam muy tuub dégg ca yàlla y dëgg daal xamul lenn lu mel ni moom moo tax xadis ba ne ma min cheyin ahabu ilallah min shaabin taibin kon yàlla bëgg na lool waxambaane wu tarxiisoon nekk sax ndaw nga gaaw rek gaaw delluwaat tuub bala ngaa mage waaye tuub tamit bala ngaa béjaaw lii wane tamit na sa tuub gi yàlla nangu na ko boo daan def bàkkaar ba ca kanam nga tuub ko dama dem ba bàkkaar booba sa cër ya na ko mënutul koo defati rek xamal na yow sa tuub ga yàlla nangu na ko yaa njaalo nga tuub njaalo waaye fu mel ni kenn mënutul laa tax a njaalo di si dund bi sa ba sa sa sa cër yi fàtte na ko place ba ko doon defee fàtte nga ko su boobaa tamit yàlla dafa koy fàtteloo malaaka ya ko bindoon moo tax alaamatu qabuliha nisyaanul maasiyati fa innahu ma nasiyaha illa li mahwiha ndax fàtte gi nga ko fàtte rek dafay tekki ne effacé nañ ko kenn bindatu ko ci sa kunnaas yi fa isa tasakkaraha fa hiya baqiyatun fekk yaa ngi koy fàttali ko rek bàkkaar baa fay des nañ ko fa bind waaye nag bu demee fa isaa kasura xayruhu wa tajalla lahu jalaalu sayyidihi nasiyaha su fekkee dafa bari nga ko nga te ko sa cër ya nga ko defee woon fàtte ko dem ba fàtte place ba sa sa yiw yàlla dafa koy fàttaloo malaaka ya doon bind muy tekki ne sa bàkkaar bi ngay tuub yàlla nangu na ko waaye su fekkee yaa ngi tuub bàkkaar boo xam ne bët bu set gën na sa cër ya delluwaat ca bu sa siddiit yëngatoo rek nga delluwaat ca ci ak càcc ci ak rambaaj ci ak jëw ci ak njaalo ci lekk xal li jàmbur sa tuub ga demut fenn waaye lay waral mandargaay nangu ko rek mooy yàlla fàttaliku sa cër yi tawba nag ay xaaj la tawbatul amma boo demee ci iraatul araïs mu ne tawbatul amma min azunub maanaam tuub ak ñëpp daal ñi ñi gën a bëri gën a matale muy jumhóor mbaldema mooy tuub ak baxi rek waaye tuub ak xaasa tawbatul xaasa kooku min al mooy fexe ba doo sàggan sa xol bi sa xel bi fu toll ma ngay teewlu yàlla tawbatu xaasatil xaasa nag kooku mooy bañ sa xol bile dara du ca toqati lu dul yàlla sooy wax boo noppeek booy nelaweek booy xeewook loo mën a wéttaliku rek sa xel mi yàlla ca nekk kon kooku moo ëpp doole ci mbooleem xeeti tuub yi moo ci ëpp doole kooku mooy fa mooy tawbatu nasuux gi alquran di wax tuubu ilaa tawbatu moo tax kooka boromam laa yu yubaali saahibuha kayfa amsa aw asbaha laa audu li maanaam laalliya amut dafay wax ne man daal bàkkaar bi ma doon tuub du ma ci dellooti mukk mën naa cee dellu dee moo tax kon ku mel noona fokk ñu jéggal ko bàkkaaram ci baax ak yàlla istighfar nag buñ koy wax ci tuub mu ngi nekk gannaaw buddeeku al istixfaar baadal iqlaa waaye buddeekoo goo ca bàkkaar ba ne yaa ngay jégalu yàlla kooku kay kàcc rek la awal istixfaaru min xayri iqlaa kadibun mënta wér fa man lam yujid inda zikril maasiyati xalaawata taaibun wa hiya wa daqat alayhimu anfusahum wa gannu an la malja'a min allahi illa ilayhi summa taaba alayhim li yatuubu ni laa huwa tawaabu kon tuub day dem ba bàkkaar bi day xat ci yow ba mel ni àdduna bi dafa xat ci yow la mu yaatu yaatu xat na nga yëg ne awma benn wéeruwaay bu dul yàlla nga mujj rek jël sa lépp delloo ko ci yàlla tuub gu mel noona lañ soxla ku mel noona bu tuubee jàllal bi ko jéggalu rek yàlla dafa koy jéggal kon nag tuub mooy la doon def yëpp nga ba ko xam kersa ci yàlla waaye tuub goo xam ne yow yaa ngi cay dellu toujours kooku taxul ñuy wax moo taxoon yàlla waxoon aadama ne ko yaa aadamu warastal warasta awlaadaka at taaba wan nasaba man daani bi daawatika labbaytuhu ka talbiyatika yaa aadamu axsuruhum min alquburi mutabashirina biya daahikiina wa duaahum mustajabun yàlla dafa ne yow aadama yaa donnloo sa doom yi coono waaye lu ca mën képp ku ma xoo ñaan ma ci ne ni ma ñaanee ma huyu ko ni ma la huyoo yaa waxoon ne rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin yow yàlla yàq nañ suñ bopp tuub nañ dellu ci yow boo ñu jéggalul ñi perte wallahi ku ku ku ma tuubalee noonu rek ma nangulee ko ni ma la nangulee kon nag in taaballahu alayka tubtu fa zanbu yaqinun indaka wa qabulu tawbati ala gayri yaqin xam nga bàkkaar bi nga def moom wóor na la tuub gi nga def wóor na la waaye nangu tuub gi moom wóorul la waaye nag am na ay signes yoo xam ne soo ko gisee rek xamal ne sa tuub gi de yàlla nangu na ko mooy daal bàkkaar bi ngay tuub kenn mënu la caa tax a dellooti fàtte nga ko ba fàtte fañ ko doon defee sax ah su boobaa nag kon yàlla mën na laa nangul tuub ga te tuub na kenn mënu cee mucc ba jëlee sayyiduna Muhammad dafa daan wax ne innahu la yugaanu ala qalbi fa astaghfirullah fil yawmi sab'ina marra yonent bi neen léeg-léeg rek am lu yëngal sama xol bi ma jéggalu yàlla juróom-ñaar fukki yoon mu tasawi fi ne nañ maqaama ya muy yéeg rek la ndax maqaama bu mu yéeg bu ko wàccee xool ba bu nekkoon dafay mel ni ci bàkkaar la nekkoon mu mujj tuub jéggalu yàlla mooy tekki ne kon bët bu set yonent bi dana yéeg juróom-ñaar fukki maqaama ci maqaama yàlla yi kon maqaama yàlla yi kenn xamul ni mu toll xamul xàq foo demee ba foo ne la rek am na yu ne sa dana la avancé rek escalier la boo xam ne xamul àpp kon nag nañuy gën di dellu ci yàlla bu baax dellu bu baax di tuub dellu ci yàlla waaye nag ba zallatun ba'da tawba aqbahum min sab'ina qablaha ci tom tuub ba pare xiisa delluwaat ca li nga doon tuub nga defaat ko ñu ne loola moo gën a ñaaw juróom ñaar fukki bàkkaar yoo ko defoon njëkk nga koy tuub kon boo tuubee bul fexe ba delluwaat ci de inna ilayna iyaabahum suma inna suma inna alayna xisaabuhum kon nag loolu nañ ciy bàyyi xel tabaarakallaahu bu baax a baax a baax bu baax a baax a baax di tuub dellu ci yàlla bu baax ba mel ni jigéen ga lam waxoon paru ngorom wa waa ji dafa ñëw sàkk ko gannaaw bi mu tuubee ci ak mbon mu ne ko ah man de ak mbon dutuma ci dellooti xanaa lu dul ma koy defee foo xam ne kenn du ma gisati waaja dem luye benn sapour benn ci auberge bi ne ko kaay maag yow rek a fi ne kenn gisul nu mu ne ko des na ñetti bunt su ma defee yow lu bon danaa xam ne def naa kook ak yow yow da xam ne def nga ko te yàlla tamit maa yakunu min najwa salaasun illaa huwa raabi'uhum ah waa jatakat tuba ko yow daal jeexal naa takk tey man li de sama dum sa duutoo mooyati kon loolu mooy li am solo kon tuub googu ma tuddal la ak maqaamaat yu kawe yooya mu ràngoo ak darajaat yu kawe yooyu mu ame mooy première maqaama moom tuub tabaarakallaahu ci maqaamaatul islaam yi a tawbatu waaye waxoon naa la ko timit ñaareel ba mooy li ñu tuddee taqwa muy ragal yàlla ak a jafe ragal yàlla boo ko doon firi mooy teeta def li la yàlla tere ak teeta bàyyi li la yàlla digal kooku rek mooy taqwa yàlla ne nag ki leen gën a tedd ci yéen mooy ki ma gën a ragal rek ku gën a ragal yàlla rek yaa ëpp cër sa morom ki ko ragalut inna akramakum indallahi atqaakum la yàlla wax moom daal ku la gën a ragal yàlla moo la ëpp cër ci yàlla kon ragal yàlla mooy lépp ku la ko ëppale moo la ëpp kon nag nañuy góorgóorlu ci taqwa taqwa moomu nag dafa boole mbooleem yiw yi moom daal mbooleem xeeti yiw yi ñuy wut rek taqwa ko boole fa taqwa jimaaxu kulli xayrin wal jihaadu rëhbaaniyatul islaam jihaad mooy ak labbihu ci lislaam taqwaa nag moo boole yiw yëpp waaye nag wa zikru nuurul qalbi tudd yàlla mooy lumière xol cosaanal taqwa mooy teet bokkaale moom ngay njëkk a def fexe ba doo bokkaale yàlla ak dara kooku mooy aslu ba ñaareel ba nag nga fexe ba mooy nga teet mooy yàlla ñetteel ba mooy nga fexe ba teet subuhaat yi lënt lënt yi lu la leerul ba ko lu am jiix a jaaxa ba waaye gannaaw si gi nag nga bàyyi faddalaat yi ah, ndesit yi donte ndesit yu daggan la sax nga bakko ko xotti yëre yu dul sol ndesit yu des la tiim lekk gi daggan na waaye bala ngaa ba da ngaa suur ndesit la da war a bàyyi bala ngaa suur tiim ndox mi di naan ne feeg màndiwuma duma bàyyi ndesit la waroo ko def yore ay portable yu dul jeex gaare oto yu dul jeex tabax kër yu dul dëkkee yu dul jeex yooyu yëpp ci fadalaat yi la feek bàyyeegoo loola nag sa taqwa des na kon aslu taqwa ittiqaau shirki suma al maasi suma subuhaati suma al fadalaat kon yooyu boobu nag mooy daraja mooy mooy darajatul oliya ba waaye nag darajatul oliya boobu mooy xaqatuqaati yi mooy bayi ndesit yëpp loo am soxla rek ngay wut te li nga am soxla sax boo gisee ku la ci ëpp soxla nga jox ko ko dugg ci wa yuusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa moo tax kon kooku nag mooy xàq tuqaat yi mooy topp yàlla bañ koo moy di ko tudd foo toll doo ko fàtte su ko defee di ko sant foo mën a nekk doo ko doo ko weddi di ko dimbali ko doo dimbali ko ku moom doo dimbali ko tamit lu dul moom su ko defee kon nag kooku mooy taqwa gi gën a kawe loolu nag kenn mënu cee yegg lu dul foo toll ngay muñ ci balaa ak nattu ak gàllankoor yi taqawaa googa boo ci nekkee moo lay xeddale ci kasfu ki maam kalifa nan fal kasfu kat xiila xaydul awliyaa yi fa maa tamilu loo ahlul inaayaati taqawaa googa boo ca boo ca boo ko toppee bàyyiwuloo ko moo la yóbbu ci musaahada kiiraay yi doxoon sa diggante lépp nga mujj jàkkaarloo ak moom su ko defee nag nga bokk ci fattaqi ma siwaahu watruki dunuba kullaha soo ko defee rek tan maanaam tabarakallahu tastaq li mufaaraqati dunya su ko defee wala daaral axiratu xayrun lillazina yattaquuna afala taqiluuna nga yegg ca alaamatu taqi nag mandargaam ku ragal yàlla ñett la bala ñoo xam ne yow mii ko ragal yàlla nga faw ñetti mandarga nekk ci yow mooy rafetal wakiilu ci yàlla xusnu tawakkuli fii maa lam yanal lépp loo xam ne mënoo koo xam nga delloo sa bopp wakiilu ci yàlla ñaareel ba mooy xusnu rida rafet ak gërëm rafet ak d'accord ci lépp loo xam xusnu rida fii maa xad naa la ñetteel ba mooy wa xusnu sabri ala ma xat faata lépp lu la nga rafet ci muñ rafet ak muñ rafet ak gërëm yàlla rafet ak wakkilu ñett yi mooy tax ala kulli haal ñi xam ne yow mii la daal alaamatu taq yi mi ngi ci yow su ko defee kon nag dëgg-dëgg làmmiñ dana lottu ci melal dëgg-dëgg taqwa kallatil alsunu an wasfi taqwa wa hiya ittiqaau ruyati taqwaaka dëggi dëggi ragal yàlla gi làmmeñ lott ci man koo melal mooy nga bañ gis sa ragal yàlla gi feeg yaa ngi gis sa ragal yàlla gi sax yow ragalutoo yàlla moo taxoon Abu Hanifa fa la yeggoon bu ko nit amee laan bor mu ñëw di ko fayeeku si du nangoo toog ci ron garabam gi du nangoo toog ci ron terag saalam bi climatiseur ba di koy hupp dafay wax ne bar bor bi bijj na njariñ ndax bijj na benn sedd gu baxee koo ci borom bor bi muy muy garabam gi keru garabam gi wala sedd ak climatiseur bi wala sedd ak ventilateur am bi maanaam may door di jot ca bor ba kon te yonent bi nee na bépp bor bu bijji njariñ rek loola riba la loola xaraam na xoolal ma kii fi mu heggoon ci ragal yàlla waaye ànd ak loolu lépp taxul mu gis ko abu hanifa kaana laa yajlisu fi zilli shajarati gharimihi kon foofa la heggoon benn taqiyu ci atqiyaaw yi mooy kenn ku ragal yàlla ci ñi ragal yàlla benn bis mos naa fóot maanaam yëreem mu fendal ko ci jant bi ngir bañ tabaarakallaahu euh, poussière bi yëg ca kawam ak pagitu bàyyi ma yàlla dogal benn xet ci xeti gaa wadd ca kaw yëreem ba bu ko defee nag moom mu dox di dem di seet borom xet woowa di ko baxalu jàmbur dal ca kaw yëreem ba mu xanaa borom xet ko war a baxalu àq waaye moom dëgg tànkam dem di baxalu ji foofu la gaa yi ci ragal yàlla fa Abu Hanifa yeggoon ba kenn mënu koo merloo lu ko nit def jàpp ne dana ko tax a mer du ko def mu ne nit warta mer ci bakkanam feeg yaa ngi mer sa bakkan tax laa mer nga mere sa jabar mbaa sa doom mbaa sa mbokk mbaa sa xarit mbaa sa dëkkandoo rek yow nekkuloo taqiyu Abu fa nag nu ne def nañ ko ko pour merloo ko mën mënta sotti benn bis mu jëli maanaam ah, muy dem di julli ji romb borom état su kànk yi kooko sotti ko ndox mi bëgg mu mer Abu Hanifa téen ko ba mu gis ko mu ne ko jërëjëf kuy daw safara nga sotti ko ndox noppal nga ko loo ca man imaamu Shafii yu looloo ko dal taqiyu la woon kenn mënu ko merloo ci lu ci bakkanam dafa jël yére ba jox ko tëyër bi ne ko ñawal ma ko benn noonam féete ko gannaaw ne ko da ngay xatal loxob càmmooy bi su ko defee dangay ngay ko kon loxob ndeyjoor bi yaaxal loxob càmmooy bi tabaarakallaahu yére ba ñëw loxob ndeyjoor baa nga xata xat loxo loxob caam mooy baa nga yaatoo yaatu loolu neexut a sol mu ñëw mu ne ko ku la ñawloo hee nii sama yére bi mu ne ko benn waaye ñun naa ko ñëwee nii mu ne ko kooku sama soppi la sama xarit la dafa xam ne bind kat laa te booy bind sol mbubb moo xam ne loxo yee dafa rëy foo tollu ngay wagasu moo tax mu ne la xatal ko kooku dimbali na ma lool dootuma wagasooti xam na ne jàngkat laa fu ma toll maa ngi xenu téere fu ma toog rek xen waaye téere mu jege ma léeg-léeg ma xen waxaat mu sori ma mu xam ne nag kuy xenuy téere dafay xaajoo sa yére bile nga koy wagga soog a wakk moom nag dimbale na ma xam ne yére bi loxob tànk loxob nday mooy ba yaatu na duutuma wagga sooti mooy wàccee boppam jërëjëf ki la sant nga defal ba lii jërëjëf yow mi ma ko defal kooku foo koy merloo ji wuteeg naa Cameroun ngir bakkanam nekk ci dëkk ay nit di jaamu genn garab ilimaan ja mer na day gori garab ga saytaane dogaale ko amee melow waxambaane foo jëm mu ne ko garab gi lay gori bu ci sa yoon mu ne ko fu ñuy defee lu bon boo ko fekkee nga nopp ci ca nga bokk ndax yonentoonu jàngaloon man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi kon tey dama koy dindi ci sama loxo su ma ko mëntoon fa in lam yastati fa bi lisaanihi su ma ko mëntoon fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika ad'aful iman ah saytaane ne ko lu ci sa yoon doo ko fi goree sa yoon nekku ci sa doom yi jaamuwuñ ko say sët jaamuwuñ ko mu ne ko danaa ko gor yi ñu songoo waa jaa nga màgget ba kotootoot iblis a ngi nekk ci digg dooleem moom màgget ma daane ko ba toog ci ndigg la mu xam ne pexe jeex na bu ko jaayee doole tey mu toroxal ko mu ne ko pexe fi des ah mu ne ko nag léegi daal wax ma looy dépense par weer mu ne ko à peu près deux cent mille par weer mu ne ko bàyyi fi garab gi bu ko goroti danaa la weer wu dee ma defal la sa sa saroon sa bi ñeent fukki junni nga koy dépensé weer wu njëkk ba mu dugalal ko ko ba dugalal ko trois cent mille bu dépassu ca waxu dara weer wa dee bala cinq la dix la quinze sa jaada ba dara nekkul ca mu xenu semuñ wa day gori garab ga iblis gatandu ko melow waxambaane wa moom mu yore melow màggatam wa danga ko gori duma ko gori dama koy gori mu ne ko lang ma waxoon joxoo ma ca dara dama koy gori ñu songoo moom màgget ma daane woon tey ñu ne ko ba toog ca dënnam ba mu mujj xéemu nag laaj waa ji ne ko yow bërki démb lañ fiy bëri ca weer wële keroog laa gënoon a am poids ñu bëree ma daan la tey tey sama poids baa ngi nii dafa gën a yokk kon waaw lu waral nga daan ma mu ne ko keroog ba nga duggee ne ngay gori garab ga ngaa meroon te yàlla tax dugutoon sa bakkan yàlla mi nga mer tam tax mu dooleel la moo taxoon mënuma ma la dékku delloo doole yàlla kenn mënu koo dékku mu ne ko tey nag danga ngaa mer ngir sa bakkan li ma la diggoon te joxuma la ko moo tax tey amoo doole ma songook yow daan la buñ songowaatee ma duma la garab gi boo ko goree ma lakk sa ndigg ah te dama la waxoon dootuma la ki joxati dara ñàkk na ñàkk na ñàkk na diis ñàkk las teg kon nag ku bëgg xam a ci dëgg xam doole del mer yàlla tax ndax dëri bu gàtt bi sax wax na ko wa an yaxdiba lillah wa an yarda lillah wa an yuxiba lillah booy bëgg bëggal ngir yàlla booy mer meral ngir yàlla booy gërëm gërëmal ngir yàlla waaye boo bëggee ngir sa bakkan torox boo boo meree ngir sa bakkan torox boo boo boo gërëmee ngir sa bakkan torox ñu ci bëri nag seen mer mi ci bakkan mi rek di fuuñ fuuñi waaye boo ko laajee lu tax nga mere ki tegul ko fenn ci bakkanam rek te mer dafa metti yàlla rek moo xewoo ñi war ko cee def ku def mer ci lu duxul yàlla perte nga luy mer mer mooy ay tuñ yu funki ay lex yu ay lex yu gondale waaye tamit xar-xaram bu soppeeku xonq bët ya xonq cor si diiti baat ya taxaw lii kum na ci yow bu la fekkoon nga ñaaw sa ñaawaay ba yokku na bu la fekkutoon nga ñaaw sos nga ñaawaay ci sa bopp kon nag sos ñaawaay ci sa bopp mbaa yokkam ñaawaay ci sa bopp bu la ko kenn jaral ku yàlla koo ko def ku yàlla jaru ko ay fuñ yu funki bu néwi ay lex yu xonq cur bët yu xonq cur si diiti baat yu taxaw ba mel ni ay xet yu ñuy samp bu ko kenn jaral koo ko def ku pertement la kon nag mag ñi buñ daan mer yàllaay tax bu ñuy bëgg yàllaay tax bu ñuy gërëm tabaarakallaahu yàllaay tax waaye duñ def dara ci kenn moo taxoon tamit ñi raw ñu duñ ñoom kon martabatu saaniya ba mooy a taqwa bii nga xam ne moo la jural yooyu yëpp taqwa mile tabaarakallaahu ay maratib la boo demee ca ruuxul bayaan wax na ko muy waxee yàlla ne wata sa wadu fa ina xayra saadi taqwa mu ne baat la boo xam ne dafa boole mbooleem xiiw yi maanaam nag mooy topp ndigle yi bàyyi tere yi foofa lay jàmbi di mujjee maanaam mu mën ko protéger ci safara moo tax yàlla ne wa alsamahum kalimata taqwa kooku mooy martabatu ula bi saaniya ba nag mooy waa boo xam ne dafa lay teetal lépp luy waral yeddaange xatta bàkkaar yu mag yi da koy baax moom la alquran ne walaw anna ahlal qura wala walaw anna ahlal kitaab amanu wattaqaw la kafarna anhum sayyi'atihim wala adxalnahum jannatin naim kooku mooy martabatu saaniya ba martabatu saalisa ba nag mooy nga jaam bi teet lépp lu koy soxla wali yàlla rek moom la alquran ne yaa ayyuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimuna akaabiru yàlla yi dañuy wax ne laa yabluqul abdu xaqiqata taqwa xatta yakuna bi xaytu law jaala maa fi qalbihi fi tabaqin fi tabaqin nazifin fi suuq lam yastahi li man nazara ilayhi mu ne jaam bi feek heggagut ci ragal yàlla bu fekkoon ne mën nañ ko def ci palaat muy ragal yàlla gi nekk ci xolam jël palaat booba teg ko ci marché bi nit ñi di ko romb xam ne lu set lu baax a ca ne feeg yëggagoo foofa rek sargal yàlla des na xam nga ne am na ñoo xam ne tey dina seen xol yi bëgguñ kenn gis ko yow ma tub la saraa'iru nag lay feeñee fa maa lahu min quwwatin wala naasirin moo taxoon benn waliyu yàlla wax ne inna xayraati dunya wal axira jumiat taxta kalimatin waxida wa hiya taqwa mbooleem yiw yi yi ñuy wut ci àdduna ak àllaaxira lépp dafa dajoo ci baatam ragal yàlla mi ngi ci ndax boo bëggee ragal yàlla boo ragalee yàlla première buntu moom lay hubbil mooy xam-xama bi yër loo yërati xam ko moo tax alquran ni wattaqullaha wa yuallimukumullah ñaareel ba boo ragalee yàlla mu hubbil la xam-xama bi yër moom la alquran ne in tattaqullaha yaj'al lakum furqaanan ñetteel ba boo ragalee yàlla mu hubbil la wërsëg wa man yattaqi laa yaj'al lahu maxrajan wa yarsuqhu min haythu laa yahtasib boo ragalee yàlla mu hubbil la buntab wilaaya moo tax alquran ne wa maa kaanu awliyaahu in awliyaahu ilal muttaqun boo ragalee yàlla mu hubbil la buntab mucc ku la songu daanu koo songu toroxal ko wa in tasbiru wa tattaqu laa yadurrukum kayduhum shay'an boo ragalee yàlla mu hubbil la buntab mujj gu rafet moo tax alquran ni wal aqibatu lil muttaqina kon mbooleem bunt yu ñuy hubbi di ko fëgg muy bunti yiw xalaa kulli xaal lépp mi ngi ci ragal yàlla boo ragalee yàlla rek xam ko képp koo xam ne ragal nga yàlla bunti yiw yëpp ubbeeku ci sa kaw ci sa kanam nga tuj ànd ak loolu boo ragalee yàlla yàlla bëgg la moo tax yàlla ne inna laa yuhibbul muttaqina kon kay lii booy lépp ku ragal yàlla tamit xiinu gàcce man naa mën naa xiin di dënn waaye du taw mukk ci yow alquran na ko wax ma wa man yattaqillaa yaj'al lahu maxrajan loo dugg génn ca boo ragalee yàlla sa wax jub boo ragalee yàlla sa jëf jub soo ragalee yàlla yàlla xéwénal sa mbir lépp moo tax yàlla ne yaa ayyuhal-laziina taqullaaha wa quulu qawlan sadiidan lii lu ko gën boo ragalee yàlla nekk ki gën a tedd ci nit ñi moo tax mu ne inna laay indallaahi atqaakum boo ragalee yàlla sa mbir yëpp yomb wa man yattaqillaaha yaj'al lahu min amrihi yusran waaye tamit ah, allazina amanu wa kaanu yattaquuna boo ragalee yàlla dugg xal jaana lahumul busraa fil dunya wa fil aaxira loolu la alquran wax yàlla nti boo ragalee yàlla musal mu musal la fu mënum na si na taqaw nga mukki ci la lëndëm ak bàmmeel wéetaay wa mbugal ma ak lépp lu ci xaj ba mucc ci safara boo ragalee yàlla nga dem aljana moo tax mu ne uidat lil na moom aljana kon ragal yàlla mooy lépp moo tax tabaarakallaahu wér na ne kon ci aayaat yi ma jàngal la saadata daaray ni yëpp ñi ngi ko leem mi ngi lemu ci ragal yàlla kon nag euh, texe ñaal na ko ragal yàlla moo tax yàlla ak ne moo taxoon ma dénk ko yonantu ya ak ña ma joxoon téere ya wala qad wassayna lazina utul kitaab min qablikum wa iyyaakum lu ko tegu ani taqullaha lii ne moo taxoon maa bëggoon seen àdduna jàkk bëgg seen àllaaxira jàkk moo tax dénk lu ma leen dara du dul ragal yàlla yàlla nee na sax kër gu mujj ga ñi ragal yàlla laa koy jox ak mujj moo tax ma tilka daarul aaxira naj'aluhaa lillaziina laa yuriiduuna uluwwan fil ardi wala fasaadan wal aaqibatu lil muttaqiin kon nag ragal yàllaay lépp jaafaru sadiq laajoon nañ ko lan mooy xaqiqatu taqwa mu ne mooy jaam bi bu mu gis ci boppam daal lu koy lu koy rafetal dama dem ba gisatu loolu rafet dama dem ba gisatu loolu ñaaw boo xas boo ci xasee xegg rek tabaarakallaahu xegg nga ci njóllëfteenu ragal yàlla kon nag taqwa ngoog mi nga xam ne mooy ñaareelu Euh, martabatu ci maratibu li ñuy tuddee tabarakallahu al islam martabatu mujj ba nag moo ci gën a jafe mooy al istiqamatu istiqamatu mooy jub kocc bi yàlla wax ne fastaqim kama umirta wa e taaba maaka yow yonent bi jubal kocc ni la ko sa digalee moo tax daana toog ba ci kanam mu ne sëya bët nii huudun wa axawaatuha huud de ak mbokkam ya bi jaawloo nañ ma la ma ca gën a nag gaaw a tax bi jaaw mooy aaye ji ma yàlla wax ne jubal kocc bu ci xamoon doy na waaye dafa ne waman taaba maaka man ma jub kocc sax jafe na ci waxin waaye rawatina nag naa fexe ba képp ku jënd carte carte de membre ci man jub kocc waxin la waaye moom jub ko ci jëfewut ko xam na ko yàlla yenkewal na ko ko jàppandal ko ko ko waaye fexe ba njabootam gi yëpp jub ko ci nag fa problème ba nekk muy xeet wi yëpp jub ko ci kon jub ko ci jafe na ah, fexe ba jub ko ci sa wax jub ko ci sa jëf jub ko ci ci say kooka nag lu jafe jafe jafe la kooku mooy ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim gayril maxdubi alayhim wala doolliin loola nekk na loo xam ne tabarakallahu al istiqamatu muy jub kocc te na ko yàlla bëggee gannaaw bi ga bàyyi ko ci martabatu at tawba bàyyi ko ci martabatu at taqwa waaye nga fexe ba xam tamit istiqaamatu loolu nekk na loo xam ne tabaarakallaahu lu jafe-jafe jafe la waaye ala kulli xaal lu jafe rek la ñuy jéem ku ci jéem suñu borom subhanahu wa taala nga xam ne mooy rabbul izzati wal jabaroot dana la ca dimbale ndax yàlla mooy dimbale ak kon ci lépp lu ñuy sémb ak lépp lu ñu bëgg xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wi nag ma sof ak yow li ma sosoon ak yow wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.